ji saar mu réer ma rëcc ci jaww ji moom la ñuy ñëpp di waxtaane jamono ji dëgg la am du dëgg ñaar ñoo xam ne rek ay sénégalais yu la euh, jot a nekk ca bitim réew ku ci mel ni Mollah Morgun ma nga ca Canada Tunkara nekk ca États-Unis jot nañoo daal di amal ay live di ci indi ay leeral bu ñu sukkandikoo ci kàddu Ousmane Tunkara mi nga xam ne moo ko njëkk daal di xamle ne Adji Sarr dafa daal di daw fa mu nekkoon ba rëcc sax élément bi ya nga xam ne ñoom ñoo ko doon garder mu daal di xamle itam ne fi ne Adji dañ koy wër ay mbokkam bëgg nañ dañ kaa gis mais mun ñi kaa teg gët loolu jur ab xibaar ci ëllëg sa rek la ñu gis Mollah Morgun génnaat def yeneen ni révélation ne kilifa gu mag moo ko dal di o ne ko Adji Sarr ci boppam dafa dal di daw dem kër benn cousine Ousmane Sonko ngir ñu yóbbu ko ca Ousmane Sonko mu mun a baalu àq Ousmane Sonko Mollah Morgun nag daal di xamle ne bi ko kilifa gi waxee loolu mu jot a daal di def ay gëstook ay jàngatam la ñu ca jublu du lenn lu dul mu daal di jàllale xibaar boobu ngir sénégalais yëpp daal wax ne Adji sàkkal peke bëgg kaa jiñ ki xam ne moom moo di mu daal di koy teg ne li xeeñ ci côté Adji neexul bu moytuwul nguur gi dana ko sàkkal pexe ba noppi rek daal di koy jiñ Ousmane Sonko ndax seenu complot bu ñu tëggoon boo xam ne rek bëgg kaa jaaral ci Adji Sarr dem nañ ba xam ne dara sottiwut ndax mu nu ñu am ay preuve yu inculpé ki di njiitul Pastef di Ousmane Sonko. Adji Sarr mi ñuy wax dafa réer gis nañ ko ci benn vidéo mu taxaw ci ab boutique di jënd ñu daal di partagé vidéo boobu fan laak ndaka la nag moo doon laaj bi ñuy samp kañ kañ la ak nu mu demee moo doon laaj beneen laaj bu ñuy samp lu mu mën a doon ci jamono ji Mollah Morgun ak Ousmane Tounkara di disparition bu Adji Sarr ca geneen wàll beneen vidéo bu ci ñu dal di koy partagé ci réseaux sociaux yi ñu gis Adji Sarr amu yoru mbuus taxaw ci ab boutique di jënd